2021 du woon atum élection waaye yëngu woon na lool ci wàllu politique la ko gënoon a yëngal nag mi ngi tàmbali février bi ñu yëkkatee ab plainte bu bàyyeekoo ci ab xaleb masseuse bu ñu naan Adji Sarr jëm ci Ousmane Sonko mi mu ne daf ko sàkku yoo tuuma borom salon bi di Sweet Beauty nekk ca Sacré-Cœur 3 daf kaa weddi woon moom Ndeye Khady Ndiaye teg loxo ci kaamil waat ne usmaan Sonko taqewul laalewul ci li ko xale bi di tuumaal moom nag ginnaaw gi xaalis bu bari bare bari waaye it ñu ngi koy menacé ngir mu gën a dugal Ousmane Sonko ba mu lànkee nag ña ñu jàpp ni ñoo ne ci ginnaaw mbir mi daal di nañuy dal ci kawam ndax moom soxna si ba convoqué nañu ko kook doomam ji doon doog a judute matut waaye it tëj nañu salon wam nangu passeport am gannaaw gi ñu def ko ci contrôle judiciaire Ousmane Sonko moom layam layameewul Macky Sall la joxoñ baaraamu tuuma ne lii lépp moom moo ni ca gannaaw. parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ne ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yor na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon su doon moom ak man ñoo ci des ba dëgg bët moom ak rek ba dëgg bët wala APR ak Pastef rek ba dëgg bët léegi ñu gis ñu ñu ñu ñu ñuy ñokkal kon ñu jënk la jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñëpp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay ay ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca ba ñuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa sa biir euh, sa biir euh, wanag di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu nag lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroriste yi du ñu dugg Sénégal nu ñuy def ba euh, samba boy du ñu dogaale nit ñi di di di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lépp lépp lu nekk ci biir këram di photo di filmer loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi du ma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am lu ñu jëflanteeg ñun identifié nañu ñeent ci sama waa sécurité loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme njeextalu weeru février yëf yi gaaw lool gannaaw bi mu lankee wuyu ji convocation gendarmerie ndax ne député la ñaar fukki fan ak juróom-benn weeru février mbalaanu kiirlaay Ousmane Sonko muri nañu ko ci assemblée nationale ñetti fan weeru mars ci 9 heures ni ñu denk ko dossier bi daal di koy convoqué waaye Ousmane sonkoo teelu te génn këram daanaka waxtu wanu ko convoqué ca la fa génn yem nag ci mbooloo mu takk lool mu ko gunge topp ko itam cortège Ousmane Sonko bloqué gendarmerie dugg ca yëf ya Sonko ni avenue Cheikh Anta Diop lay jaar waaye préfet bi doon doxal yëf ya ne ko ca corniche ba ngay aw fitna ga daal di jolli gars yi Ousmane Sonko yéeg taskatu xibaar yi yëpp policiers yi jóor leen ni grenade lacrymogène ci santaane préfet njiital Pastef ñu mujjee kàtteeg loxo ngir trouble à l'ordre public waaye itam bokk ci manifestation bu nu aayee ak violence et de fait yóbbu ko ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane ay fitna daal di jolli ci réew mi yëpp ca cëppaandaw la fukk ak ñeent ci ay bakkan neenu rot na ca ay magasin Auchan ñu dajji leen lakk leen sàcc ya fa ne woon ay station essence itam ñu lakk leen ak yeneen i mbir yu xew gardaw yu Ousmane Sonko ngir trouble à l'ordre public ñu ngi ko yëkkati dimanche ci ngoon altine fajar cuuy ñu yóbbu ko ca tribunal ci digg bëccëg gi doyen des juges Samba Sall daal di koy def ci contrôle judiciaire ndax moom moomee doyen de juges moo mujjoon na yore dossier bi gannaaw ba ca juge huitième cabinet Mamadou Seck raxasoo ba set kilifa diina yi général des Mourides dox ay tànki jàmm ba dal dellu siwaat fitna googee li ci topp mooy geneen tiis di accident bu metti bi yóbbu ci yoonu Kédougou gi ñett ci liggéeykatu leeral lu ni mel xewe woon ci tournée économique bu président Macky Sall opposition bi jàppee woon ko tournée politique fanweeri fan ak benn weeru mai beneen tournée bu président Macky Sall itam gars yi jàppee woon ko politique te mu ne koom-koom dong kalal amoon na weeru juin mel ni nag ñuy tontu ci yooyee tournée l'opposition bi yëgle ni coalition bu mag danañu ko taxawal jëm ci élection locale yi nga xam ni bés bi jàppoon nañu ko ba nuppi benn weer ca gannaaw muy ñaar fukki fan ñett weeru janvier atum 2022 waaye coalition boobu muy juddoog fa muy faatoo benn la parti démocratique sénégalais mi àndul woon ca nanuy doxalee moo ca njëkkaroo ceeku dem taxawali wallu askan wi ànd ca ak CRD jot na bokk gis-gis ak ñeneen Sonko ak Khalifa Sall ak seeni gaay ñoom itam taxawal yeewi askan wi gannaaw xeexu coalition yi yeneen it di yu investiture yi tàmbali woon na ànd ak naqar ci ñenn ñi ak mbetteel ci ñeneen ñi mer ba futu nag amee woon na ci opposition bi niki ci pouvoir bi waaye gi ci gënoon a fës mooy Guy Soham Wardini mi nekkoon maire bu Ndakaaru te yaakaaroon lool ni Yewwi Askan Wi moom la ñuy tànn ngir mu doon seen candidat waaye ca mujjantal ga Yewwi Askan Wi Barthélémy Dias la tànn soxam nag jàpp ne bilan moom war na koo mën a falaat ba tax mu fas yéene bokkaat ci la élection dem ànd ak coalition buntu bi dépôt liste yi itam yu doy waar xewoon na ci bu weesoo rejet ak forclusion list opposition yi Yewwi Askan Wi itam daal dinay dund wor gu mitti ca Matam fa nga xamee ni mandataire dafa daw ak liste ya Jibril Ngom ñu jàppee ko workat gannaaw gi président Macky Sall da ko dalal ca palais de la république enveloppe kaki bu ñu gis ci photo bi gannaaw audience bi dal di indi coow lu baree bari di ci fal ak Ousmane Sonko nag ni gannaaw loole dañuy def plainte kii di Jibril Ngom waaye itam beneen plainte wax nañu ne daanu ko yóbbu ca haute cour de justice teg ko ci ndoor di Macky Sall ngir haute trahison bu weesoo Ousmane Sonko député Boubacar Biaye ak Mamadou Sall bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom itam ñàkk nañu seen mbalaanu kii laay ci atum 2021 gi ndax dañu leen a tuddoon ci mbiram trafic passeport diplomatique Mamadou Sall ci mandat de la nekk ñaar fukki fan ak benn weeru décembre ba léegi maanaam ma nga ca kaso ba beneen député bi di Boubacar Biaye moom nee na jotagul convocation convocation Barthélémy Dias ci mbiram Ndiaga Diouf ay fan gannaaw ba ñu ko ni mu ko mooy pexe yu ñu lal ñoom waa nguur gi ngir faagaagal ab adversaire politique rawatina nag ki nga xam ni moo gën a doon wujj ci Abdoulaye Diouf saar ci élection yi ñu dëgmal ci ndakaaru fukki fan weeru novembre la ñu jàppoon boobee convocation ba nu yeggee ca bés ba nga xam ni waa Yewwi Askan Wi woote woon nañ ca mobilisation bu am solo la ca xew mooy Barthélemy Diaz Ousmane Sonko ak Malick Gakou mujjee nañu leen a teg loxo gannaaw fitna gu jolli ca boori Medina procès ba ñu dàq ko ba benn fanweeru décembre dàqati ko ba ñaari fanweeru mars ginnaaw càkkute fu bàyyeekoo ci ñaari pàcc yépp ndax metre Amadou Sy avocat la bu bees bu dugg ci dossier bi te bëgg na ko miin la tañoo yegg ci àtte dossier primature itam yëkkatiwaat nañu ko ci atum 2021 niki ba ñu ko fiy jëlee ci atum 2019 dekkit postu premier ministre julatina mbetteel ci conseil des ministres bi ñu amal ñaar fukki fan ak ñeent weeru novembre atum 2021 la ñu xamle ni boobee projet de loi adopté nañu ko mbetteel googa yépp nag teewul yëf yi jàll na ci assemblée nationale fukki fan weeru décembre la ñu ko wote ci séance plénière ñu bari ca député yi ànd ci ñu indiwaat boobee poste doonte sax président fukki fan ak juróom la am gannaaw bu ñu ko wotee ngir promulguer boobu la waa tabb premier ministre nee na yëf yi dafa jël dogal dàq ko ba gannaaw élection locale ñaar fukki fan ak ñetti weeru janvier atum 2022 fii la ñuy yem ci fàttaliku xew-xew yi gënoon a fës ci wàllu ñeel atum 2021 dig leen daje décembre atum 2022 ndéem soob na borom bi di leen ñaanal atum jàmm atum naataange ànd ak wér ak xéewal gu barkeel